rendez-vous le 14 novembre le 14 novembre nag kan moo wootee benn destination la jardin des Almadies lay xewee au jardin des Almadies oui foofu lañ jëm ku ñu fay àndal daa ren di jëlof bandi Viviane ngeen namoon ko mu leen toog lu yàgg jouéwul donc mu ne soppey nag foog ma gisee ak ñoom foog ma jàkkaarloo ak ñoom donc rendez-vous bi le 14 novembre la incha allah foofu ca jardin des Almadies na ñëpp ñëw dîner spectacle lay doon dîner bi 30 000 la entrée simple 10 000 VIP 15 000 donc rendez-vous le 14 novembre incha allah ak Viviane ak jëlof Colobane dina neex dina metti ndax namoon ngeen ko mu namb leen na ñëpp daw def seen ay réservation rendez-vous le 14 novembre ak la reine du Djolof Bane Viviane. mooy Dakar man Niakhar Lô aka Faramareen musique maa ngi seetaan DK TV. voilà man la Mame Fatou Ndoye maa ngi seetaan DK TV. Maabo. Maabo jaajëf waay DK TV. kon man El Hadj Bekay Mbaye maa ngi seetaan DK TV. man Malick Thiandoum maa ngi setan DK TV. oui euh, man Moustapha Guèye maa ngi seetaan DK TV. man Viviane maa ngi seetaan. DK TV. yes sir yes sir Wally Ballago Seck mi ngi wu ci DK people ah. waaw man El Hadj Abdou Bilal Koutia damay seetaan DKTV. pour yu am solo. ngaa ko blende maa ngi seetaan DKTV. di dundu gis DKTV. Malom Zodal maa ngi seetaan DKTV. pré lañ ma liggéey la ma liggéey DKTV iway dina ko seetaan waay voilà. yàlla na ngeen nekk ca kanam li neexul. DKTV.